tey li taxoon ñu def atelier bi moom mooy dañoo bëgg ñi nga xam ne mooy sunuy mag ñu leen di wax les femmes leaders ñu ñëw wax seen jaar-jaar léegi buñ paree ci jaar-jaar yooyu ñun en tant que les jeunes activistes ñun dañoo bëgg jël ci jaar-jaar yooyu noonu jël ci li nga xam ne ñoom jot nañ kaa def ñu xool ñun lan lañ war a mën a def pour que xale yu jigéen yëpp ñu mën a am jàng bu mucc ayib. si loolu tamit dinañ si jot di travail lu bëri di liggéey lu bëri parce que xam nañ ni xale yu jigéen ñi ak xale yu góor yi bokkuñu li nga xam ne li li leen di jox bokkul en général ñun dañuy def lépp pour que. xale yu jigéen yi ñu mën a am seen i place ñun si programme yi nga xam ne dinañ koy def surtout loolu tamit dañuy gis ni lu bëri problème bi dafay nekk par rapport ak société bi li nga xam ne moom la jox góor ak li nga xam ne moom la jox jigéen lu ci bëri li moom la ñu naan euh, le genre li nga xam ne société bi moom moo ne jigéen lii la war a def góor lii la war a def loolu dina doon tamit chaque fois li nga xam ne moom moo ñuy moom moo ñuy moom moo ñuy bloqué si li nga xam ne moom la ñu neex a di def ci liggéey boobu tamit yenn saa yi ñu am si ay jafe-jafe liñ naan mariage d'enfant mooy sëyu xale yu ndaw yi parce que dañoo gis ni xale yi bàyyi ñu si bëri du ci ah, ci surtout si ah, gox-goxaat yi kër yi dafa sori ak école yi seeni waajur dañuy préféré ñu tee leen ci kër yi si loo tamit am na liñ naan la pauvreté maanaam seen doole matewul lu ci bëri waajur yi nga xam ne ñoo nekk ci liñ naan les zones ñoom dañuy préféré à chaque fois seen doom bi nga xam ne amuñu possibilité pour di ko jox muy paas di dem école ñu ne nañ ko téye ci kër gi wala nañ ko maye loolu bokk na ci lu bëri li nga xam ne daf ñuy daf ñuy tere ñu avancer. pour ce qui est de l' lépp lu bokk ci éducation ministère de l' éducation moo ko moom waaye du tere ministère de l' éducation dina liggéey at euh, sectoriel yëpp ñuy liggéey ci affaire xale. affaire éducation ñi nga xamante ni xel la mën na collaborer ak ñoom ba tax Euh, éducation am na ay programmes yu mu tegoon ay projet programme de renforcement programme de PAEF éducation des filles fexe ba nga xamante ni xale yu jigéen ñi dinañ gën a toog ci école yi mais tamit lépp lu mën a gàllankoor seen wàllu jàng dinañ fexe ba dindi ko. tey jii am na benn kii bu ñuy bu ñuy développé sur la sécurité au niveau de lécole école lutte contre les violences au niveau de l' école avec le ministère de l' éducation. ñun nag au niveau de notre direction ñi ngi euh, liggéey surtout ci l'abandon des mariages d'enfants l'abandon des mariages d'enfants bi nga xamante ni xëy la am na ay plan d'action yu ñu tëral te ñaan yàlla mën ko dérouler